wa ala xayri xadimihi dil xablil matin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin mbokk jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa nu santee borom subhaanahu wa taala julli ci Mustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii waxtaante yu ñu bëgg koo jëmale ci diggante Sëriñ ak jaamu yàlla xam na ne jaamu yàlla day mbir mu am solo moo xam moom rekk a taxoon suñu boroom bind bindee fii moom rekk a taxoon bind doomu aadama ak jinne nit ak jinne yàlla doywu leen dara dara taxul mu bind leen lu may ngeen ñu jaamu ko rek ni ko waxe ci alxuraan ne binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma wa maa xalaqtu jinne wala insa illa liya'budun jaamu googu nag nga xam ne moo taxoon yàlla bind nit ak jinne jaamu gi amulul yàlla njariñ su ñépp maasi woon di ko jaamu tey sellal du yokk ca nguuram ga dara su ko ñépp maasi woon wedd maasi ko woon gannaaw it du wàññ ca nguuram ga dara ndax ñépp aja waa yàlla waa yàlla muy mën naa ñàkk ñépp yaa ayyuhan naasu antumul fuqaraau ilallaahi wallaahu huwal ganiyyul hamiid su boom neen yéen nit ñi yenn a aajowoo yàlla yéen a ko mënta ñàkk waaye yàlla mu doylu na walif ñépp ak lépp jaamu googu nag mooy lii dundal ruuxu doomu aadama mooy noflaayu xol tey ak texemit ni nga xamee ne yaram dafa aajowoo lekk ak naan ngir mën a dund mën a màgg ni ko noonu ruux yi dafa aajowoo ñam wu muy dunde ngir mën a dund mën a yokk waaye ak dundam ak yokkum ne lépp mi ngi ci jege yàlla azza wa jalla te jege googu mi ngi ko amee ci jaamu ko jaamu nag jaamu yàlla mën nañu wax ne ñetti xaaj la séddilikoo muy jaamu yàlla gog xol muy pas-pas yi ak la caaju ba ko ñaari mooy jaamu yàlla ak làmmiñ muy li muy wax muy làmmiñ di wax ni ko naan jaamu yàlla ak cër muy jëf yi su dee jaamu yàlla xol mu ngi jaam muy jaamu yi nga xam ne lu am la waaye nekkul lu bët mën a gis wala loxo man koo laal waaye ci xol lay nekk bokk na ci misaal loola lu mel bëgg yàlla subhaanahu wa taala bëgg yàlla jaamu xol la nekkul lu ñuy gis mbaa ñu koy làmbu di ko daj bëgg yàlla ak yaakaar yërmandeem ak xemeem amub yool ci moom yépp jaamu la waaye nekkul lu bët di gis wala loxo di ko laal kon lu mel ni wakiilu ci yàlla wakiilu ci doyloo ko yépp ay jaam jaam yu xol la nga xam ne xol koy fas waaye nekkul lu bët di gis wala loxo mën koo laal ba ko ñaaree bu dee jaamu yàlla ak làmmiñ te mooy wax yi mooy lu làmmiñ di tudd te tudd ga mu koy tudd mu jublu ci jaamu yàlla yéene ci jaamu yàlla yaakaar ci itam amu yool bokk nañu misaal yi loolu tudd ñaari baati seere yi jaamu yàlla ak làmmiñ la tagg yàlla subhaanahu wa taala jaamu yàlla ak làmmiñ la ñaan jaamu yàlla ak làmmiñ la tudd yàlla jàng alquran ak woote jëm ci yàlla subhanahu wa taala ci xereñ ak rafetal digle lu baax tere lu bon yépp jaamu yàlla yoo xam ne làmmiñ moo koy def su dee jaamu yàlla ak cër yi nag mooy jëf yi koy firndeel nga xam ne moom bët da koy gis euh, du lu ñuy xam ñu muy loo xam ne dafay aajowoo yëngatu ak toxu ci misaal lu ci mel ni julli jaamu yàlla goo xam ne cër moo koy def bokk na ci itam lu mel ni e, yu yu yu yu baree baree bari la mooy jëf yu jàkkaarlool yépp rek xaj màkka jihaat ci yoon yàlla tabaski yi nézar yi ngénte yi mboolem ibaadaat yépp lu cër def loolu mooy ñetteelu xeet wi kon mooy ñett yooyu mooy xeeti jaamu yàlla jàmm yàlla xol muy pas-pas yi jaamu yàlla làmmiñ muy wax yi jaamu yàlla cër yi muy jëf yi am solo googu jaamu yàlla am solo nag moo tax Sëriñ Tuubaa mii sunu yaakaar léppam doon jàmm yàlla man nga ne li dale ci rawam ba biñ ko noppee gis musa seq benn jéego bu dul ci jaamu yàlla la ko jëme musa yëkkati genn kàddu ci jaamu yàlla ko jëme musa digle lenn lu ma ci jaamu yàlla la jëm tàmbalee ko ci ak rawam ni ko Seex Ahmadul Bachir waxe ci Minanul Baaxil Xadim ne soxna sa muy soxna jaara dadaa yar ay doomam ak njabootam ci jaamu yàlla ci jikko yu rafet ci mbañam mburus di leen yee ci doxinu gaayu yàlla yi fi jiitu woon bokk na lam leen daa wax min da bi saalihin lay la أشهد أن لا واشهد أن محمدا رسول sunu السلام soxna di soññ nag ci jaamu yàlla googu yi ba di wax ne gaa yu baax yi fi jiitoon de bokk na ci seen aada dañ daa taxaw guddi di ko dundal di naafi la bi lool na toq ci nopp sëriñ bi nag ci la tàmbalee taxaw ci jullikaay bi di fa fanaanee taxaw taboo dalgul sax jàng nga xam ne kon ku teele jëm ci boromam la doon itam ko teel a soobu ngirum tasawuf doxinu gaa yu baax yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon te Sëñ Tuubaa doon wax ne dafa mel ni seen son seen doxin su fekkoon ak tabax la ñeenti ñeenti jën yoo ko yanu ba ci njëkk mooy noppi sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun wa uslatun an shuyuxin bil ishaarati muy noppi ak xiif bu yam te yàgg eh, ak fokk muy ñàkk nelaw guddi ak beru nit ñi ngir mën a wéetal yàlla subhanahu wa taala mu teela lo teel lool tënku ci ngir moomu waaye teel a xam ne itam boppam ndax dafay bind di xamle moom fu mu nekk bismillahi arrahmani arrahim ila kulli man lam yaalam bi amri katibi hadi alxuruf salaamun laayiqun bi mooy lii may binde mi ngi jëm ci ki nga xam ne xamul mbirum kiy bind xaraf yi ne kooku na maa ngi koy nuyu ba yàlla ci moom amma baad fa inna katiba hadihi alxurufi lam yadlimillah tabaraka wa taala wa lam yadlim rasulahu sallallahu taala alayhi wa sallam wa lam yuwajjih ila ahadin fadlah tabaraka wa taala bi jaahi rasuli sallallahu alayhi wa sallam baatilan muntu aqal nee na ki bind xaraf yii day musta tooñ yàlla tabaraka wa taala musta tooñ it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu xàmmee loxo ndajoor càmmoñam ba léegi it mus sa ci kenn lenn luy niru lor loolu nag mi ko amee ci eh, wala ak neen mus sa jëme ak neen ci kenn lool nag mi ngi ko amee ci ngëneeleel yàlla ak barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waa ca teg ne fal yawma yuridu an yunabbiha kulla ma lam ya'lam bi amrihi tanbihan la yakun ba'duhu shakk tey nag daa bëgg a yee ko xamul mbiram yeete goo xam ne sikk sàkk dootam gannaawam yeete ga mooy allahu tabaraka wa taala rabbi wa sayiduna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nabiyi tabaraka wa wal quranu dalili wa hudaya wal islaamu diini wal kaabatu xiblati wallahu ala ma naqul maa ngi xamle ne man yàlla rek sama borom subhanahu wa taala moom rek laay jàmm moom rek laa fi nekkal sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sama yonent tey ndaw li yàlla yebal ci man tey sama wasila ci yàlla tabaraka wa taala alquran mooy sama tegtal tey sama njub lislaam mooy sama diine kaabatullaahi mooy sama xibla daan lii ma wax na yàlla rek laa ko seereel kon moo dafa bëgg ne kon jullit la bu bu bu la boo xam ne jàmm yàlla la ko la taxoon sunu bam bind ko loolu rek fa bàyyi te ca la gu dégg bëccëg leneen soxalu ko leneen mosu ko tax a jóg dëkk bu mu mas sanc it da ko sanc ci yéene ju sel te mooy jaamu yàlla rek subhanahu wa taala musa sañc fenn ngir suuf su neex a bay wala da dabu ay suufi maam waaye fu ma sañc fa nekk jàmm yàlla dong nga tax mu sañc ko ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu sañcee Daaru Salaam mi nga xam ne moom la njëkk a sañc bi mu koy sañc nga xam ne moom la njëkk a sañc ci barab bu moomul boppam xaside gi muy gi doon taalif di ca ñaan bi muy sànc Daaru Salaam ak islam ci ñaan lépp weesu barab nekk barab bu xam-xam nekk barab njub nekk barab topp yàlla bañu topp bidaa nekk dëkkub gëm yàlla ak sell ak lislaam ak sellal maa ngi cay wax naan waj'alhu yaa mawlaaya mawdi al huda waqdi bihi xaajata man raamal huda yow sama maa ngi ñaan nga defal ma sama dëkk biir Daaru Salaam mu nekk bara bu njub ta fajal ma fi aajooy képp kuy sàkku ak njub wajalhu rabbi mawdi at wa mawdi al fikrati wa wa mawdi at tarshidi taalimi wa mawdi at taswibi wa maa ngi nga defal mu nekk barab bu ñuy sàkkoo xam-xam barab bu ñuy xalaate xalaat yu am njariñ te te te di fi dégg diine waaye nekk barab bu ñuy gindee te di fi xamle nekk barab bu ñuy eh, jubbante am xel te di fi déggali diine waccan lu maw di xuróoju min dolam li noor wax fi andu koy deman dolam maa ngi la jànge def mu nekk dëb barab bu ñuy génn ci lënn mug réer ak bidaak mooy yàlla tàbbi ci leeru xam-xam leeru sunna leeru ngëm yàlla dangay fegal ma fa ayu képp kuy tooñ wa bawi anha daari littibaaci li sunnatin laa daari libtidaaci wal tajcalanha maskana al imaani wa maskana al islaami wal ixsaani wa ammiranha bittuqaa wan nuuri wa zuhdi wal waraci fi duhuri maa ngi ñaan nga def mu nekk barabu topp yàlla topp sunna te bañ a bidaa nekk barabu gëm yàlla te wommatu ci lislaam tey rafetal da dundal barab bi nag muy Daaru Salaam ci ragal yàlla ak leer ak dëddu àdduna ak sàmm diiru jamono yi nga gis lim fi ñaan lépp daray àdduna néew ci waaye lépp luy dundal jaam yàlla te di ko saxal la bi mu sañc Tuubaa it ba dem ci saadatul muridiin wax na fa li tax mu sañc ko ba tàmbalee ca tarjumaan ja ba ca dawwanaha fi maskanihi tuuba xarasaha allahu bi taala bi jaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaama min hijrati man mu dawwinu fi maskani zalik ila limaat lay taala subhanahu wa taala bi xidmati sallallahu taala kan xam ne wane kon at mii mu ko sanc dara taxul mu sanc ko lu may jaamu ak liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi ñaar yooyu mu jaam yàlla liggéeyal yoon saas bu ci nekk mu def ca xam ne jéggi na euh, jéggi na xam-xamu doomu aadama wala boog jéggi na jéggi na dayoo jina àgg na fa foo xam daal kenn àggu fa su dee jaamu gi dem na ba wax ne ibadatuna faaxat ibadati gayrina wa billahi min iblis sama dikri wa utuna sama jaamu yàlla man suñu tubaab féet na ko jaamu yàlla keneen ko dul man loolu doy na sëkk kon dem ma de ay bu bu gëmmee mel ni koy nelaw sax eh, ma ngay jàmm yàlla ma xayam na gëpp bët yaa gëm waaye xol bu mag ci alxuraan moom di ci lañ lañ di ca seetantal di ci génn ay ay ay ay ak i xikam naw ma ibadatu rabbin la sharika lahu xalbi dabiru ayun turiste xikama kon incha bu ñu dee gën cee xóotal ci jàmm yàlla fi mu ko tolloon ak nam nam ca doxeek lam ko jural yàlla su moon defal ndimbal ak tawfiq xëy ñu xiir nu ci njub te saxal nu ci def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangu sunu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa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 ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salam الحمد لله واحد القهار رب السماوات والأرض ما بينهما العزيز الغفار والصلاة والسلام على المبعوث للخلق بالتبشير والإنذار سيدنا محمد بآله وصحبه أولي الأيدي والأبصار أما بعد فيا أيها الناس تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بميزان الشريعة جميع أعمالكم فما وافق منها قسطاس الشريعة فدوموا عليه وما خالفوا فتوبوا منه واجتنبوه واعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى wa anna maa fi haadihi dunya qalilun yafnaa wa maa alxayaatu dunya illaa mataaxul xuruur ayuha nnaas abudu llaha washkuruhu ala nicami law raama fardu min afraadi alcibaada an yuxsiya maa unhima bihi alayhi fi xalqi cudwin min acdaa'ihi aw xaasiyatin min xawaasihi lam yaqdir ala daalik فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه الله في بطنه والنعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف أجناسها اللهم إنا نشكر نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا بما لا يعلمه إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين salaatan turdiika wa tardaa biha anna alhamdulillahi alladi tataxayaru duna idraaki jalaalihi wa azamatihi alqulub walxawaatir wa takillu fi mabaarihi ishraaqi anwaarihi alaxdaaq wannawaadir naxmaduhu taala wa nashkuruhu ala ma lahu alayna min sunufi alixsaan wa nashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu kulla yawmin wa fi shaan amma baad فاعلموا أن عبادة الله هو سبب الفوز والنجاح وسبيل السعادة والفلاح قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واجتعلوا عباد الله أن لا يراكم مولاكم حيث نهاكم وأن لا يفقدكم حيث أمركم وفي الحديث المهاجر من هاجر السوء والمجاهد من جاهد نفسه وهوى واغتنموا في شعركم هذا النزل القليل أمه الباقي فإنه أحد الأشهر الحرم التي عمل الصالح فيها عند الله يزكو فإنه كل وقت كله وقت رحمات وعطيات واغتنموا هذا الخير العظيم وعملوا ليوم لا يلهو فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaah qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani arrahiim maaliki yawmi ddiin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 مثل الذي أملت ورأسه يحملها كمثل الإمرأة الأسفار إذا مثل القميص كالسماوات ولا غير قميص الظالم يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم عن الله من الناس وتمنوا إن كنتم صادقين ولا يتمنون أبدا مثل الظالمين كلمة ليست تفررون في ملاقيكم ثم تردون إلى نقلب الشهادة فإن بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا لم من الجمعة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 فيعظم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله asalaamualeykum. asalaamualeykum. wal tudxil al muslih fi yadi wa fi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 wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wafi wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wafi wal tudxilil musliha fi yadi wa fi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 wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wafi wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wafi wal tudxilil musliha fi yadi wa fi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 wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wafi wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wafi wal tudxilil musliha fi yadi wa fi